diggante kilifa diine yi ak njiitu réew Sénégal yi mu yàgg am ay teraanga yu ci dox gannaaw ay waxtaan xalif généraux yi di faral di jox njiitu réew yi ay kado yu ci mel ni téereb alxuraan sijaada wala sax kurus. dëkk boo fa demee di fa séntu cadeau nit ki li mu lay jox ci cadeau mooy li mu am lu gën a ca barab booba tey boo demee Touba ak nga dem Tivaouane ak yeneen dëkk yu mel ni comme ñoom Sénégal alxuraan mooy lu gën a foor foofa. loolee am solos gu rëy ci kilifa diine yi ndax bu ñu sukkandikoo ci xalifa baabu gannaaw dalal bi nga xam ne ni moom lañ leen di dalal ak yile kado dafa am yit ay dénkaan yi nga xam ne ni ñooy ànd ak yile kado. di nga xamal ni nit ñi mu war yore réew bu ñu la ko dénkee lu lépp bokk yàlla régir na ko ci biir alxuraan bu fa tegee tànkam yàlla mun na ko dimbali waaye tamit di ko bul fàtte tamit ëllëg jaamu yàlla nga jullit nga dawente lee xisaab reddition de comptes bi ñuy wax fii reddition des comptes bi ñuy wax fii ci àdduna yowmal xiyaam la fekk baax. bu weesuwee njiitu réew yi kilifa diine yi daañu faral di jox yi ni mel yeneen ni gan yi ci mel ni ay njiit yu nekk ci kujje gi. parce que ki doon opposant tey suba mooy jiite te ki nekk opposant tamit nekkul sax président de la république mais am na lu mu yor yor na parti wala yor na mouvement. wala am na lu mu yoree moom di ko doxal kon bu ñëwee ba Touba wala bu wala mu dem ci foo xam ne yàlla nee nag yonent bi neen lañ fay wax ñooñu lu ñu koy mun mooy fàttali ko nit ki ni nga jiitee dëkk yu mel ni états njiitu réew mi gannaaw bu ñu ko tàbbee day waat teg loxoom ci constitution bi waaye tamit ci bible bi naam réewum Sénégal constitution bi waxul li ni mel waaye mën nañoo yaakaar si suñuy kilifa diine ngir ñu fàttali njiitu réew mi ni saa sune war naa bàyyi xel alxuraan ak bible bi ngir mën a sàmmanteeg li nga xam ne ni moom la dogoo ak askan wi.